taala jeudi 27 juin 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb record leewtoo point net yépp ku ci nekk daal tey xëy nga am loo nga xam ne moom nga ñu indil bu dee suñu làmb la moom jàppal kii nga xam ne moo di Moussa Gningue nekkoon fii sol sa ca écurie daal moom la xëy tey dalal di ko laaj ci rëg-rëg ni mu ko gisee moom nag mu ngi xamal ki nga xam ne nii moo doon laaj laaj yooyu Moussa ñing Moussa daal mu ngi koy xamal ki nga xam ne moo di réew ak taxawaayam Iba Kane nag moo ko doon laaj-laaj yi musaa ñu ngi ne na ko day jàppal rëg-rëg fi mu nekk nii moom li leer ba leer loolu la ñuy wax samp ci làmb daal moom la ñu ko def maanaam rëg-rëg daal dañu koo samp Moussa ñu ngi nag moo xëy di wax loolu moo tax nag mu ngay dànkaafu ñi nga xam ne ñoo di ay adversaire am nee na leen def leen ndànk ci moom de na ngeen ko moytu ku dangereux la fi mu nekk nii nee tamit pour daan ko moom jàppal lu jafe la parce que dafa jàpp ne day ñettat yoo xam ne day samp nañ ko ko moom Moussa ñu ngi fi mu nekk nii ci la taxaw kon nag kii di Ama Baldé ak saa Thiès wala yeneen adversaire daal yu war a bëri ak moom moom musaa ñu ngi leen di dànkaafu nee leen tey leen ci moom na ngeen tey bu baax a baax ci mbiri rëg-rëg yëglikaay bi di la bi di sunu làmb moo xëy wax nu ko keneen koo xam ne mii moom ah daa mel ni moom itam day mbiru musique mooma mu nga ci belende boppam bu baax a baax ca dëkkam ba ñuy wax sàmbe muy Boy Niang numéro 2 yëglikaay bi moo ko topp maanaam ka nga xam ne di naat jigéen la waaye di yëngutu ci mbir yooyu daal muy kenn ngom dafa mel ni fi mu nekk nii day ñoom daal ndam daal la ñu gis ndam rek gisuñu leneen ne nañ boo bëggee dëgg-dëgg moo xam jinne ya la wala rab yaag ya mel ni ki ñoom lu ci mën a doon daal ak xàmb yëpp lépp fi nekk nii daal jàppal na ñoom ñu nga ca ngir lan ndamal kii nga xam ne moo di boy ñang yëglikaay bi moo xëy tey wax nu ko kenn koo xam ne mii moom ndam la bëgg ba xëy ci yëglikaay bi di ko wax mooy double moteur moom nag ay plan daal palaay dubul moteur daal ci fëgal la ay minutes yu néew la fas yéene jàmmaarlu ak moom daan ko demu yoonam sunu làmb xëy tey di ñu wax loolu kenn koo xam ne ni moom tamit day sama ngi waaj a ñëw mu di ab kombaam muy Modou Lo moo tax sunu làmb xëy ñu xam ne day Modou Lo li leer ba leer nag ah samedi jii daal lay jóge ci réewum États-Unis dugg si fii nga xam ne mooy Sénégal fas yéene nag jubli ci kombaam bi nga xam ne moo ko fas yéene boole ak. Eumeu Sène mu di combat revanche waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii moo di ca yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb waa Pikine moom fi mu nekk nii daa mel ni tànkum xeex dëgg lañ taxawee wala boog tànki ku nar a geer yi ndax daal booy nag moom ñoom ñëpp ànd nañu di ko xamal ne ko dey moom du moroomu Lac de Guiers te buñ ca yeggee Lac du gis dara sunu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay dañ caa ñëw muy loo xam ne nii day combat le 28 bi war a am diggante Modou ak Eumeu Sène mu mel ni ki nag bras de fer wala boog ab xëccoo dox na ci diggante Moustapha Diop mu ko tëgg ak docteur Alioune mi nga xam ne mooy président wu CNG bi docteur Alioune nag la mu gëm te xamle ko mooy daal li leer ba leer lamb yëpp xaj nañ arène nationale te lamb yëpp fa la ñuy amee jamono jooju nag Moustapha Diop moom daa mel ni la ko gënal mooy mu tëgg lambam Léopold Sédar Senghor waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay dem yëglikaay yi xëy tey di ñu ko wax muy drapeau de l'état Leewtoo point net daal mu nga xëy ñëw ci ak ñun di ñu xam ne ni leer ba leer day jàppal délégation ya moom ah dem nañu démb wala boo commencé nañoo dem rawatina nag waa CNC ak ñi ñu àndal seeni arbitre ñu mel ni kii noona waaye dafa mel ni drapeau de l'état booba moom jàppal daal fi mu nekk nii moom ñu ngi ca waajtaayoo équipe ya nag ñu ngay waajal seen bopp boo bëggee dégg-dégg Louga moom génne nañ seen ay mbër ya nga xam ne ni ñoo leen war a bëreel mu toll nag ci li nga xam ne nii daal dix parce que nag cinq la waaye ñoom catégorie bu ne dañ ca wut ñaar tegagu ko en attendant noonu moo tax yëglekaay bi xëy tey ñëw di ñu ko wax ña nga xam ne tamit ñoom ñoo di waa ñi nga xam ne ñoo di waa Kédougou tamit seeni cinq mbër moom tànn nañ leen maanaam juróom ña leen nar a jonganteel ka ca njëkk 66 kilo ba Thierno Seydou Nourou ba la tudd 76 kilo ba Babacar Diallo 86 kilo Amadou Sarr waaye 100 kilo ba Yankouba Sarr la tudd ka nga xam ne mooy 120 kilo ba tamit moo di ki nga xam ne mooy Ababacar Sarr yëglekaay médias yi ñoo xëy tey di ñu wax lu mel noonu leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fi nga xam ne moo di record record moom mu ngi xëy di ñu yëgal ni ñu dey li leer ba leer nag léegi Baye Ndiaye ak waa Albourakh Events daal régularisé nañu combat wu Boy Niang ak kii nga xam ne moo di Lac de Guiers démb nag lañ ko régularisé fi nga xam ne mooy ca CNG ba maanaam kon combat bi jàppal léegi nag le 13 juillet moom leer na naññ ne ca lay am la nga xam ne nii moom ab recours la woon kii di marale dugaloon ko ca combat ba doxoon diggante ak Boy Bawol jàpp ne moom deful carte appui day mu mel ni nag loolu tamit verdict ba génn na kon daal marale moom li leer ba leer léegi moom jàppal ne que nag confirmé nañ ne booy Bawal daan na ko loola kon CNG bi dëggal na ko waaye beneen recours boo xam ne nii duggoon na au niveau du CNG muy recours ay xale yoo xam ne ñoom itam bëri woon nañu ba kenn ka ñu jàpp ne moo am ndam doxoon ci diggante trompeur numéro de ak Ardo booba moom sans verdict la ko CNG bi mujj a def maanaam kenn daanul sa morom waaye li neex bal neex ñu fekk ko ci Leewtoo point net mooy rëg-rëg rëg bi nga xam ne moo fi daan giri dee ki déem waa Leewtoo point ñu nag rëg-rëg mbir ma xam nga nu ko muy soppeem ginnaaw ba mu fi nekkee naan diw na ñëw ba bëreeg diw du ñu bëreeg yooyu rëg-rëg ndekete booba am na lu muy lijjanti rëg-rëg takk na jabar yéeglikaay bi ni Leewtoo point net moo ñu ko xëy xamal jabar ja nag ne nañ soxna sa daal kon Fass Mbaw daal la ko gisee kooka moo ko daaneel bërig nag dal di ko jox xolam ak xëtëram ak léppam waaye rëg-rëg yal na la sa sëy jig waaye taala njaay gis koo nopp mu nopp liti muy dëgg nga takk ko est ce que aay na kon rëg-rëg yàlla na nga am sëyub jàmm loolu neex na waaye tey jii itam day yàlla na Sénégal gañe Algérie score bu rëy rëy moom la ñuy ñaan ndax olof a ko wax ku raaj dimbali sa kanam day dël te ay sénégalais lañu ay sénégalais lañu ndey kumba faal du loolu amam réew mi yàlla nañu gañe Leewtoo TV ñu leen di nuyu leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. fay naa la Ndeye Koumba Fall di nuy ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci Leewtoo yépp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek comme ni nga ko waxee tey ñu nuyu ñëpp ñaanal ñëpp jàmm te sàqu ko si ñooma ah. ñu ñëw nag ci jàngat bi comme ni nga ko waxee. Babacar ni ngi commencé ak euh, sunu laam sunu laam nag tey dafa ñëw ak Moussa Gningue mu ñuy woowee ancien euh, bu ñuy woowee sorcier de Fass ñëw na nag si carrière Reug Reug sa carrière Reug Reug la ñëw maanaam Reug Reug la moo tax muy gagné nee nañ ko samp bu ñetti at nee na aussi mbër yi nañu def attention si moom ñëw na daal si cumukaay Reug Reug daal si la dugg tey waaw musaa Gningue day bu waxee ci wàllum làmb ak xarfa xuuf ak yooyu moom wàcc na te tamit su ciy wax lu ñu war a bàyyi xel la ndax defe naa ne ca mbay géey ba ci tafaagee ba ci Gris Bordeaux ku ci ne encadré na te yaakaar naa ba mu leen encadré yi tamit defe naa résultat ya amoon na njariñ kon tey bu ñëwee di wax ci Reug Reug ñu laaj ko xalaatam Iba Kane laaj ko mu wax li mu gis jar naa bàyyi xel ne dañ koo samp pour trois ans lamb nag samp da ciy am lamb moom samp da ci am man nag xamuma samp nañ ko xamuñu samp man xamuma ko ndax xamuma ba xam dañ dañ koo samp wala sampuñu ko mais moom mi wax moom yaakaar naa koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram moom Moussa ñu di ko ñaanal bopp doomu aadama bu nekk si àddina bi di dund mais a bàyyi xel parce que ak mbirum maanaam mbirum ñaan ak nangam ak sàngam loolu moo làmb ànd parce que mooy sarmu bi mbër nag dañ koy samp waaw am mbër moom dañ koy samp ci nangam ci nangami at ci nangami combat ci nangami nangam loolu lu war a mën a am la na tamit ay adversaire am ñu moytu ko waaw waaye nag yaakaar naa duñ ko moytu xanaa ba ne dañ koo samp duñu bëri ak moom lii problème bi kay yow mi nga xam ne yow yaa war a bëri ak moom la ko def yow itam yaay wuti yow say mbokk wala ñu la war a defal ba bu ngeen ca yeggee loola bañ caa feeñ ba bu ngeen bëri yaakaar war nga koo mën a daan waaw mais nag làmb moom mook loolu am rëg nag moom li ma la mën a xamal moom fi mu nekk nii <laughs> waaw moom daal xam naa ne mbër la te mbër mu gëm li muy def la man moom côté sportif bi su suma foofu laa gën a mën a waxee li ma xam daal mooy que ne athlète la boo xam ne nii dafa mel ni ci li may gis respecté na entrainement te bëgg na li muy def te nangu na compétir loolu nag su nekkee ci atlet pour sport bi muy def wala la muy pratiquer wuyu si ko pour man day yomb si moom trop quoi Babacar tey nag sunu laam dafa mel ni nit si wàllum xar fa xuufa si la ñu gën a yëngu suñ jógee si Moussa njëng ak cumukaay yu rëdd rek ñu dal si booy Niang nee nañu Boy Niang daal mi ngi waajal combat ak Lac de Guiers bu baax a baax loolu sax moo tax euh, mu dem seeti ki nga xam ni mooy euh, kenn kenn kenn ngom muy euh, muy muy sort genre genre sorcière wala sorcière <laughs> jigéen daal jigéen sëñ bu jigéen daal moo dem seeti fu mu dem jàppale ko si kaw combat bi ma xam ne moom la dëgg la moom moom ak la dëggeer waaw waaw ñooñu xam naa ne comme fas dëkk ba ñuy wax Sambé la foofu nag di dëkku cosaanu Boy Niang a ah, ñoo yor xamb yi xam naa mooy ñi nga xam ne yor xamb yi foofu ay tuur ay xamb yooyu xam nga yooyu ñun ñu yaroo ci kaw gi xam nañ ko ay tuur parce que dañ ko daan def ni ay comme ay jour mercredi ñu di ñu dem di fa lekki comme ay nàkk lañ fay def ak ay soow ak yooyu kooku nag xam naa moo xamb yooyu foofu nga xam ne mooy sàmbe booy ña ngi dem fa seeti ko Dakar fi am na ay tuur di soo demee Tëngéej ak Yoff am na ay tuur waaw parce que boo xoolee Dakar xamal nga lu tax lébu yi ñoo fi nekk te lébu yi ñoo séréer yi ñoo bokk benn lañu waaw ñoom seen ñoom ñëpp benn la ñoo bokk lu ñuy pratiquer boo xoolee li am dakaar parce que affaire bi nii la def rek benn lef la def quoi dem topp île yi nii topp géej gi di dem boo xoolee dëkku séréer yeeg dakaar ak lépp benn la ñoo parce que réalité sénégalais la Boy Niang nag li leer ba leer daal mooy loolu lépp li ko waral mooy bis bi mu jubat moo rëy bis boobu nag lu ne la laaj la mu laaj nag laaj na dem ci say mbokk ñu ñaanal la defar la maanaam ngemb la wan la ne yaay sunu représentant yow la ñuy yaakaar ci bés bi yaa ñu war a teewal kon lu mu laaj ñoom it dañ la koy gunge biir géew ba nag bu jotee yow la fa war a def la fa war a dem yaa ko fay indi wala la fa war a xew ci yow la war a amee waaw moom it la ko war mooy mu nekk ci ay entraînement am nekk ci li nga xam ne ni moo koy may ndam moom kazaalika adversaire am di la dëgër tamit naka noonu parce que ku ci nekk rek fi nekk nii ña nga dëkkal wala ña nga xam ne ñoom nga ñooy sa cosaan dinañ la soññ gunge la puus la mais nag la des mooy que ni lu mu métti métti la fi waxoon rek wallug teen la ndey kumba fàll ku ñëw ci pind ba ngay taxaw leer laa la wax Babacar loolu am na solo nu jeexalee aussi si sunu làmb ne Modou Lo dina yëbb si samedi incha allah waaw loolu day gis nañ ko muy loo am am solo tamit yaakaar naa dina ay supporteram ñu ngi ko xaar kañ lay ñëw nangam sangam parce que combat mi yaakaar naa presque mën nañ ne moo si des kon fi mu nekk nii moom defe jot jot na nag ginnaaw maanaam ñëw nag ci mbirum contact ak yooyu day daal di jot yeggale yenn signature de contrat yi comme yenn a am yëpp bu ko ci des nag mooy combat bi pour le 28 juillet comme li ma waxoon rek yàlla nañ ko fekkete ngi woon États-Unis moom di préparé wu adversaire mu ngi woon fii Sénégal di préparé mais combat boobu itam li ma la wax rek ak bu nar a metti ngay gis diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ci combat boobu la ñuy des ñu euh, euh, dem euh, jóge sunu lamb dem record record mi nga xamal ni que combat Boy Niang Lac de Guiers dem nañu CNG pour régulariser ko foofu noonu depuis démb. waaw démb lañ ko régularisé record moo xëy bindu loolu ñu ciy nuyu suñu confrère Abou Ndour moom itam di nuyu waa record yëpp am na solo waaw loolu tamit moo lay wan ne kon lamb moom buñ ko conf buñ ko régularisé gul moom jàppal ne à tout moment mën naa am ca date ba ñu déclaré mais nag bis niveau du CNC ba régularisé ko moom jàppal ne la koy puusati mooy cas de force majeure mais bu jàmm rek amee moom jàppal ne kon le treize booba ci kàttanu yàlla dinañu ci bëri diggante ki nga xam ne moo di Lac de Guiers 2 ak Boy Niang ñu ñaanal tamit Baye Ndiaye suñu frère yàlla na ko yàlla dimbali ci journée boobu ba lépp lu mu ciy séntu ci ndam ak rek yàlla defal ko ko ci di ko ñaanal promoteur yi nga xam ne ku ci nekk summ nga journée parce ñoom li may wax rek ñooy bailleurs yi kon li ñuy dugal dañ di ñaanal yàlla ñu ciy am rentabilité maanaam muy dellusiwaat ci ñoom ba duñ ci mën a perdre seen alal. record tamit mu ngi xamal ni euh, comme ak ki nga xam ni mooy euh, Boy Bawal mu dugal recours mais CNG. dafa confirmer victoire Boy Baol. waaw maanaam daal victoire Boy Baol CNG confirmer na ko ci recours ba Marley dugaloon waaw loolu tamit mooy li yoon mooy li nga xam ne nii mooy li nga xam ne mooy li war a am maanaam li war a am su ma ko waxee mooy yow mi ñu daan nga contesté ne ni ñu ma daanee neexuma wala daanuwuma yoon moo la may nga dugal recours fa nga xam ne mooy ñu yore làmb ja muy waa CNG ñoom nag ñooy tranché atte ñu tranché nag atte jox ki nga xam ne nii moo di Boy Baol ndam maanaam confirmer ndamam la ko arbitre joxoon ci géew bi xañ Marley dëggal defet ba mu amoon ah kon li ñu mën a def mooy encouragé waat Marley comme comme nañ ko defoon ca ba arbitre joxee jël di ko wax ne ko xale la na dem liggéeyuwaat parce que lamb moo deme noonu booy bool tamit ñu félicité ko parce que heure bi daaw dafa nekkoon ci defe ren bu ñuy am ndam kon tamit dañ koy félicité di wax ne ñoom ñaar ñëpp ay esp ay xale lañu ci lamb pour man parce que defaguñ dara seen carrière kon yaakaar naa loolu amul lu mu war a yàqal ñoom ñaar kenn ku ci ne xanaa kay yokku la jom nga liggéey waat parce li des pour man li des seen kanam moo ëpp fuuf li ñu passé muy marale di booy bawol lu jógee si record dem si Leewtoo point net ñu ngi xamal ni euh, drapeau chef de l'État bi euh, arbitre yi nga xam ne ñoom la war a arbitrer tournoi boobu jóge nañu fii Dakar dem jubali Mbour. waaw loolu waaw waaw c'est normal parce que tamit c'est waaw drapeau chef de muy lu nga xam ne Mbour la war a amee ah, loolu tamit am na solo ah, arbitre yi teel a dem parce que teel a préparé parce que arbitrage damay wax ne dafa metti atte la te atte moom daa metti ay milliers de personnes toog. ku ne am fu mu far ñaar di jongante nga war leen a àtte yaakaar naa laaj na concentration laaj na daluwaay bu baax laaj na tamit récupération bu baax kon arbitre yooyu ñu ngi leen di ñaanal tamit la nga xam ne ni moom lañ leen di doye ba yóbbu leen foofa yal na leen yàlla dimbali ba seen tournoi ñoom ñu réussir ko

ah waa loolu day xéewal la loolu moom macha allah wax na dëgg nag waaw man ànd naa ci de yàlla na ko yàlla defal sëy bu ànd ak barke barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que li ma wax rek carrière bi nga xam ne moom la entamé ci xale di ci dund nekk ci actuellement defe naa mu gis ku mu bëgg takk ko te yàlla tax yàqalu ko dara au contraire da koy gën a dimbali li may wax daal moo soxnaam soosu li ñu gisan li li maanaam ku ci ne li nga gis ci sa morom ba mu doy la yàlla bu mu doon looy rëcc ci ëllëg yàlla na loolu nekk dëgg yàlla may leen njabootu barke parce que tamit àddina noonu la rek li am solo nag mooy bëggal mbëggal mbëggeel moom lenn ci nekk rek bëggante te yàlla tax lépp looy def rek na ko dëggalal yaa ngi dégg moom rëg soxnaam di ko dimbali di ko xelal am auteuru tiim ko soxnaam itam na déggal boroom këram bàyyi ko xel bu mu def te yëgu ko te di ko laaj te xam na itam ku siiw lay sëyal ku siiw nag booy sëy ak moom lu ne di ko gis parce que ñi koy aborder day bëri olof moo ne ku bindoo ni tama ñu tëggee la ni ñu tëggee la benn galañ kon nag na jàpp ne ki muy sëyal homme public la nit bu siiw la mu jàppee ko noonu li ci des nag waaw champion la tamit ah li ci des seen xel a koy mot li ak ñi leen encadré mais vraiment daal loolu contentement la di wax ne kon ñi nga xam ne bëggante nañu te gisaguñu ku leen takk yàlla nañu leen di takk ñëw ñi bëgg tamit te gisaguñu takk ku ñu takk yàlla nañu gis nañu takk parce que loolu rek moo fi ne mais lépp rek na am ci dëgg parce que dëgg jëkk te mooy mujj nday Kumba Faal Babacar am na solo si kàddu yooyu la leen tàggoo leen dox dig daje suba incha allah di nuyu Aïcha Faye madame Nia euh, yaayu bébé Ndiaga di nuyu aussi Dade Gueye ne ko teranga bi réer na rafet na kontaan naa si trop ah Babacar. Euh, di nuyu sama yaay mère ak Mohamed Astane ne depuis Italie chéri Khadija Diallo. waaw Dadi moo wóor kenn du Dadi Dadi bëgg naa la sa téléphone am na classe am na aju na macha allah ndey ngi rek dafa kontaan noonu la góor day tëral jigéen surtout bu ko mérité ñépp ko mérité sax waaye góor day teral jigéen encore une fois man loolu bëgg naa ko ci góor trop góor guy teral jigéen góor du xor ñooñal jigéen du ko dóor waru koo saaga waru koo wax lu ko metti jigéen dañ koy nax mooy sunu yaay di suñu doom di sunu bàjjen di suñu yumpaañ kon jigéen ñi man yéen laa faral mais du nuyu jigéen ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñu suivre ñépp ñoom tuuti yaay saar ñoom Khadiros ñoom Fatma Fall fu ci soxna mën a nekk rek tey bëgg Leewtoo Aïssa Faye nuyu naa ko waaye Aïda Diouf tamit kenn du ko fàtte maa ngi nuyu bu baax baax borom màdd yi capot bi waaw moom ndox meeg màdd ji laa ko tuddee tonjeeg ñoom seen waaye su équipe bii day football tey yàlla nañu gagné Algérie parce que nag ku ne am na foo bokk nun ci réew mi la ñu bokk ay sénégalais. Mauritanie tamit. moom dañ leen di ñaanal jàmm rek waaye kër xam nga dañ leen a laal laal yu metti loolu nag mooy sport loolu du gàcce parce que dañ ciy door a bokk rek àddinaa tëdde noonu di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne que na jàmm sax fii nga xam ne moo di ci réew mi mais vive vive réew mi vive les ak bandam am leen ndam lu rëy waaye cay sama jour ba Balde Keita Diaw am na ah <laughs> ku ne na koo féete woo di